li nuyu leen laataa ñu leen di jox li gën a fës tey ci yéenekaay yi niki démb la ab tiis dal ci kaw askanu Sénégal fukki liir ak juróom yu soog a juddu daal di ñàkk seen bakkan ci hôpital Mame Abdou Aziz Dabakh bu Tivaouane li waral tiis bi nag di ab lakk-lakk gu amoon ci biir service de néonatologie bu hôpital bi nakar bi dal ci kaw askan wi waral coalition Yewwi Askan Wi dinañ dakkal seen ay activité politique lu tolloog ñetti fan Fiki ci Sénégal ak diaspora bi ñenn ci askan wi nakar yu bari yi am ci walum faj gi fi ci Sénégal moo ñuy ñaan démission Abdoulaye Diouf ministre ministère de la santé et de l'action sociale